muy jël fofal naaw bi mm-hmm. enquête ba la ca daal di tuppee nege ni tey suñu mm-hmm. naataango ya nekk ca Seneweb daal di nañuy am PV enquête boobee mm-hmm. ndaxte nag moom directeur général bi nga xamante ni mu ngi wuyeew ci turu Zoris uh, ginnaaw ba mu jàkkaarloowee ak procureur de la République procureur daf ko laaj ana lan moo waraloon ba ñu la uh, incriminé daal di ne da ngaa war a fay ci lu tollooku douze milliards de francs fa ñeel wàllum yaa nga dal di jël say bagage fas yéenee génn réew bi ni moo daal di dal jabar gi kooku nag daal di ne ko nañu njibbi ca na mu gën a gaawee foofee nga xamante ne moom moo di ca Lyon ca France mhm. loolu nag moo waral mu daal di takk ay dëbësam fa yéene woon a dem waaye waxtu boobee waa division des investigations mhm. criminelles ñu nga woon ca aéroport daal di def seen kéem tolluwaay kattan ba daal di koy tegub loxo mbir ma nag euh, mu nga remonté wu dëpp 2021 2021 journal bi mu nga ñuy xamal daal di ne lépp lu jëm ci wàllum impôt et domaine mhm. mu daal di nekk benn plateforme boo xamante ni Paris Foot la moom jàppale lépp loo xamante ni toll na ci dix millions de francs CFA dañu ko notifié woon daal di ne ko ab amende la. Mhm. bu mu war a fay loolee daal di na nekk lu njëkk waaye tamit suñu continuer jëm ci wàllum vérification routine woo xamante ni mhm. nag warees na kaa def ak ay controle lépp lu jëm ci TVA ci mois d' octobre deux mille vingt et ñu mhm. estimé ko mu daal di toll ci cent vingt millions de francs CFA yoo xamante ni tamit war na kaa fay. koppari ba tey ba ñu ko xoolaatee toll na ci vingt millions yoo xamante quatre-vingt-dix-neuf millions yoo xamante ne nag mhm. daf ko daal di suturé ci mhm. askanub Sénégal maanaam yoo xamante ne daf ko jël lu jaarut ci yoon mhm. ginnaaw malversation financière yooyu nga xamante ne nag daal dina ciy am waral na ba waa direction général des impôts et domaines daal di koy indil ab redressement fiscal boo xamante ne toll na ci douze milliards de francs CFA yoo xamante ne warees nakaa mën a fay état du Sénégal moom moomee nag nekk directeur général bu Pari Foot bi ñuy woowee diwaanu Sénégal ñu mm-hmm. teg ko loxo nege ni démb ba mu jàkkaarloo ak procureur ba indi na ci ay leeraange mm-hmm. li waral daw googu mu ko doon def mu ne soxnaam moo am panique daal di tiit bëgg a njibbi ca Lyon mm-hmm. doy na euh, gisee mbir mi parce que déjà euh, daw bi rek mën nañ ko toppee en quelque sorte délit de fuite parce que ku ñu jàpp nii te boo deful dara jarul ngay daw waaye moom lu mu teg comme raison mooy jabar ji moo tiitoon ak yooyu bu nekk 2021 ba heure bii nii ñu dem la 12 milliards ça veut dire que ni TVA yi jàpp nañu ni mu ko doon fayee dese na normal impôt bi également ndax nga ko gisee. xam nga man bi may toog fii semaine bële ma naan la première bet daa war a tëj. Mhm. naan la war naa tëj des na fii ak euh, le 31. la naar bi annoncé woon ne. day tëj parce que mhm. moom wax na ko de. Mhm. dañ ko indil fisc. lu tolloog 12 milliards te mënu ko fay. cest à dañ ko redressé munu ko fay. Mhm. mu ne mu wax liggéeykatam yépp ne moom damay tëj. Mhm. bi ñoo estimé ñi mu doon liggéeyal ñii nañ huit cent personnes lañ ñii nañ sept cent personnes yoo xam ne moo leen jëloon di leen fay. daa war a fay impôt loolu ñépp ko xam mooy benn mais nag gis nga nguur gi ni ñuy régler fisc bi nii bu ñu ko paree ba pare ba dajale alal yi ñu leen amal ñépp tëj ñenn ñi ba pare xam nga nu ñuy mujjee def économie bi la ñuy daaneel après problème bi ñu am mooy nan la économie bi di yëkkatiwaatee. ñaata la naar bi amee douze millions douze milliards. lañ wax ñaata nit la employé. parce que parce que huit cent huit cent huit cent personnes. Mm-hmm. douze milliards ñaata ñaata ñaata personnes nga ci mën a fay par weer. Mm-hmm. douze milliards yooyu boo ci fayee huit cent personnes yooyu boo moytu doo leen fay ñetti weer. Mm-hmm. maanaam ci calcul dama lay wax nguur gi li tax ñii jiite réew mi li tax ña amuñu xel waruñu leen jox réew fa laa jëm c'est-à-dire que ji ngeen waxtaan ngeen xool. noo ci dawale yërmande. Mhm. c'est-à-dire que dafa war a fay ñëpp a ko xam. mais yow dangay ngay kii bu ma ko xojee mu tëj ma tëj ko kaso 800 personnes yi moom taxawaalu ji amuñ ku leen jël parce que dootuñu liggéey. Mhm. léegi 800 personnes yooyu pour ñu bañ a taxawaalu ji baal ma sauver kër gi c'est-à-dire que naa naxante. Mhm. seet nu ma jaar fekke jar na sax ma am yenn yoo xam ne ma koy bàyyi. parce que doyu ko ngir moom mi sàcc sama alal ñay war a dund ci wërsëgam boobu mu yor ñooñu moo tax may wax. c'est-à-dire man 800 personnes yi ma naar bi yërëmuma ko. 800 mhm. personnes yooyu chaque weer mu leen doon fay ñooñu laay ñoom ñooñu laay xalaat tey fan lañ jëm kii man nga ko yóbbu ci kaso bi de milliardaire bu tëdd kaso bi moom du problème après nga àtte ko layoo la ma dama lay fay doo ma fay ni nga ma redressé baaxul mu jëli avocat nga jël avocat lim la war a fay après mën na ko lijjanti fay la ko ñibbi soit nga tëj ko mu tëdd peine bi ñibbi. Mhm. léegi liggéeykat ya léegi nga gagné ci lan. cest loo ci gay parce que naar bi problème bi amoo bien boo saisir de plateforme <laughs> la yor. ñëw luyee cantine. Mhm. xam nga li tax problème am di naqaree réglé. Mhm. ñu waroon a naxtaan fexe jéem a trouver moom terrain d'entente meññee ko ci réew mi pour mhm. employé ñu xool nan lañ ko mën a kii donte mu koy fay ndànk-ndànk. mais doo jug brusquement rek loolu xam nga kan nga ko mën a def ki yor immeuble am wala mu yor ay matériel am mën nga jug brusquement tëj kontam du mën a daw su dawee nga saisir ay biam mais amuloo saisir ci moom moo tax njaboot rek la fi am. léegi nag nii ñuy fayee ko impôt bi. Ah. la nit ñi di ñaawlu. maanaam rigueur bi ñu ci àndal def nii léegi nag boo demee ba ñëpp fay la ba pare xam nga fooy mujjee. Hmm. léegi nag sama économie bii daanu nan laa koy yëkkatee c'est-à-dire que nit ñi amatuñ liggéey. léegi nag problème boobu pour pour nga régler ko avant ngay def lii ngay wut ay ay borom xam-xam ñu toog càmbar loolu. càmbar kër gi waa kala mais nag comme ñoom mbirum euh, toolu gumba lañ ko bëgg a def da nga leen di seetaan rek li may wax daal mooy. Hmm. na ñëpp góorgóorlu ku ci amoon na kus néew nga denc ko. réew du baax. ku ci amoon as néew ci wërsëg. Abdou yaa ngi ci réew mi. waaw dimbali ma waaye yow. man après damay gis kilifa démb bi mu fi jaaree su ma xamoon néew fi sax dama ne <laughs> réew mi jëmul ci yoonu baax jomaay da ko fekkoon mooy dox jomaay rëkkali na réew mi yéen xam ngeen ne réew mi jëmul jëlul sax yoonu baax réew mi ku naan dafa baax parce que c'est yaa ngi toog <coughs> parce que ñoom yor nañ nguur de yor hmm. nañ fonds yi yor nañ xaalis bi mën nañ yabal ku ne nag ci plateau jox la lu ne mën nañ taxoon si internet bu ne subventionné la di la jox ci suuf kenn du yëg di rey ñii di dundal ñii loolu mën nañ ko parce que yàgg nañ ko def loolu du problème mais nag dafa am ñeneen ñoo xam ne mënoo ko parce que ay citoyen lambda lañ di liggéey jotewuñ ca nguuree jotewuñ ca gafaka ña jote ci gafaka yi mooy ñi leen di waxal jote nañ fa sama genre yi jotewuñ ca gafaka dañuy ñaq rek mhm. tedde mhm. léegi nag genre yooyu lañ ñooñu lañ bëgg a rey mhm. xam nga nañu xoolaat impôt bi ni ñu koy fayee koo ñu xoolaat conséquence yi ñu xoolaat entreprise yu ndaw yi lii ñuy def nii. Mhm. bul yaakaar ne patron de yi la wala naar bi nga koy def wala doo ko def kenn xam nga koo koy def. Mhm. liggéeykat yi patron de presse ba mu du fay naar bi bu amul nii lay def tëj keneen dina tëj ñeneen ak ñeneen xaaral xoolal ñeneen ak ñeneen dañuy tëj. Mhm. dama port dem nga fa. daal di <laughs> wa parce que waalee fa nekk yenn information yi mais port boo fa demoon ba def enquête ci biir port. Mhm. li po li daan dugg ak léegi. ci ngay xam ne neexul ba neexul nag mais ñii moom réew mii du baax. Mhm. Ousseyn buñ changé wul méthode. Mhm. réew mii du baax xam nañ ne am na important da war a fay mais daa am noo koy fayeekoo nga am ci technique tactique. pour nga mën koo fayeeku te doo ci am benn problème mais nag xam nga lu koy indee. redresser fonds communs yi rek. comme boo redressé teg amande mhm. ti bujje fonk ma mhm. amande bi moom mhm. fonk dañ ko fonk koo xam ne waaye impôt yi demoon buñ sañoon kenn du fay bañ mën a redressé suñ sañoon kenn du fay léegi nag logique boobu lañ nekk nañ dem bëggoon naa wax tamit ci mbiru étudiant ñooro yi ñu génne non dinañ ko boros seen kër ah, yi bëggoon ko ci wax man wax ma ko sama sapa bi nga bëgg see wax non non si comme yow sa débat amatul contrôle fu la neex jaar baal ñu fétal rek. <laughs> xam nga temps te yow loolu yëpp dañ ko tënkoon. ngay génn ay Cissé yoo xam ne kenn xamul ay pelante yu bees ak. parce que Cissé yow bëggoo wax parce que bëggoo ci wax lu nga bëggul wax nga ko taawul. non dafa loolu bees la ay pelante yu bees euh, yow tamit saaw